TV rek ñu am mbégte kontante dalalaat leen rek ci jàmm euh, ñëw rek tàmbali li nga xamante rek moom moo nekk suñu réew euh, comme niñ ko baaxoo di defee ak rek dinañ dem seeti li nga xamante rek moom la yéene kaay xëyee tàmbale ko altine ba ajuma euh, su ko defee rek mu am gan bi nga xamante tamit dinañ ko dalal fii ci biir kër gi ñu daal di waxtaan moom mu di Ibrahima mu di ki nga xamante ne moo nekk Ibrahima Dabo Ibrahima Dabo nag moo yore wàllu jokkalante yi ci li nga xamante rek moom moo nekk TRRC bi fii ci biir réew mi dinañ ko dalal fii ci biir kër gi rek waxtaan ak moom lépp li nga xamante rek xeetu nag wàllub TRRC bi ñu sos fii ci biir réew mi waaye nag euh, laata ñoo dem rek seeti li nga xamante rek moom la yéen i yi xëyee dañooy damay dalal suma naataango Omar Tunkara su ko defee moom itamit mu nuyu askan wi Omar nuyu naa la fay naa la Seydou di la bi nga xam ne jamono ji ñu ngi seetaan Star TV euh, fii ci Kombosila euh, Drive di la wan rek dal ci jàmm comme ni ñu faral di def ak yéen ñu àndaat ak yéen si beneen ajuma beneen programme mu suñu réew programme boo xam ne lépp li nga am ne moom mooy itteel suñu réew dañuy ah, faral di ànd ak di ko bokk ak yéen ah, waaye tamit andi bopp xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo gën a itteel askan bi rawatina nag si ah, semaine bi nga xam ne moom mooy weesu su defee ñu bokk ko ak yéen dal leen si su ko defee rek dañuy euh, tàmbali xibaar yi nga xamante ne rek moom lañ jot fii ci biir euh, kër gi ñu njëkkee ko rek ci yéenekaay bi euh, di Foroyaa newspaper ndaxte Foroyaa newspaper nag ci seen xët bu njëkk bi nag foofa daal dinañ indi ne daal. Euh, ci biir li di euh, gaarawul PIU officers yi nga xamante rek ñu ngi leen fa yóbboon rek pour ñu daal di delloo dal ak ma foofu ca gaarawul euh, daal di nañ leen delloo ci béréb bi nga xamante ne fa lañ bàyyeekoo mu di la ci biir li di Fatoto war nañu nag PIU yi lee ñu nga bàyyi li di gaarawul ni ki ajuma bi nga xamante rek moom lañ weesu fukki fan ak juróom benn yi ci weeru novembre gannaaw bi nga xamante rek am na lu xewoon foofu ca gaarawul mu di nit ñi nga xamante rek jamono ji dañoo duggoon ci ab xeex lu ko waral moo di ne diw buur la diw jaam la ba loolu waral nag mu nga xamante xamante ne ñu ngi ko gën a ràññee ci Mouhamed fa la jaar nag ñàkk ko jamee ab paaka nga xamante ñoom ñoo nekk PIU officiers yi la bàyyeekoo foofu la ci biir di diwaanu Faroto pour ñu dem foofu ca gaarawul su ko defee rek ñu delloo si waat dal ak jàmm ci béréb boobu PIU officiers nag wane nañ ne ko wane ne daal eh, te nag ñoom seen teewaay daal foofu ca gaarawul eh, soxlatuñ ko looloo waral nag ñu daal di eh, génn foofu la ci biir di gaarawul nekk ci tund wi nga xamante ne moom lañ gën a ràññee ràññee ci lii di Upper River Region ah, mu di URR comme nuñ ko jàngatee ci yéenekaay bii di Foroyaa Newspaper benn tey ci beneen xët bu Foroyaa newspaper rek dañuy dem seeti kàddu yi nga xamante ne mu nga bàyyeekoo ci ki nga xamante ne moom moo nekk executive secretary of the Truth Reconciliation and Reparation Commission bi ah, mu di docteur Baba Galle Jallow moom nag ay kàddoom wax na ne TRRC bi eh, ñëwul fii ci biir réew mi rek pour di rëbb nit ñi wala boog di rëbb ñi nga xamante ne ni dañ leen tuumal ne dañoo def ñaawtee fii ci biir réew mi yàqalu xeetook ak ak yelloofu doomu aadama mu ne nag rëbb taxu leen a jóg waaye nag pour daal di def ab def ab ñàngat ci li nga xamante ne moo di ab ñaawte ñaawteef yu xewoon fii ci biir réew mi eh, su ko defee rek ñu daal di amale li nga xamante moom lañ gën a tuppee ci li recommendation waaye nag nekkuñ fi nekkuñ nga xamante dañuy war a àttee nga xamante ñoom ñoo def ñaawteef yooya eh, bokk ci sax nga xamante moom mooy ndey mi léegi ñu gën koo ràññee ci former président mu di eh, Jammeh ci kàddu yi nga xamante kii di docteur Baba Galle Diallo gaarale na ko ci di Foroyaa newspaper mbokk yi buñ fa Euh, beneen yéenekaay rek mu di standard newspaper standard newspaper nag ci seen xët bu ki altine fukki fan ak juróom ñeneen ci weerum novembre andi nañ njiitu mi di excellence président Adama Barrow kaddu yi nga xamante rek wax nañ ne gaaral nañ ko fii ci biir réew mi ci làmmiñam kaddu gi nag wax nañ ne ki nga xamante ne moom mooy wax ci làmmiñu njiitu réew mi di excellence président Adama Barrow ñu gën koo ràññee ci kii di Ibrahima Sankare moom nag moo ko gaarale foofu la ci GRTS di wane ne njiitu réew mi nag moom li nga xamante ne moon nekk yëg yéeneem ak bugab-gam fii ci biir réew mi mooy pour rek ñu gis ne daal dinañ génnee nga xamante ne moom mooy oote ne képp ku maa tey rek nga rey nit fii ci biir réew mi eh, dinañ la rey eh, ki nga xamante ne moom moo nekk eh, kii di Ibrahima Sankara nee na président Adama Barrow war na ne bu sañoon daal dinañ génnee bi fii ci biir réew mi te nag bu fekkee ne def nañ jéego yu ñu war a def ci pencam ndaw réew mi dara desut lu mooy mu xaatim ko pour rek loi bi ñu dàqalu ko ci baatu réew mi moom njiiti réew mi di président Adama Barrow nag mu ne dina def loola ndaxte kat moom li nga xamante ne moom moo nekk yéeneem ak bugab gaam mooy xamante ne moom mooy oote képp tey rey nit fii ci biir réew mi ñu rey la fii ci biir réew mi loi bi nag nee nañ depuis buñ moomee suñ bopp ñu am indépendance fii ci biir réew mi ñaari yoon rek lañ ko jëfandikoo fii ci biir réew mi waaye nag jàpp nañ ne ki nga xamante ne moom moo nekk former président bi di Sir Dawda Kairaba Jawara jëfandikoo woon na ko nag ci atum 1981 gannaaw bi nga xamante ne am na ab coup d'état bu xewoon fii ci biir réew mi ñu tuumal waa ji nga xamante ne ñu ngi ko gën a ràññee ci Moustapha Danso wane nag am na bakkan yu ko fii ci biir réew mi ci coup d'état booba moom nag atte woon ko ne dañ koy rey fii ci biir réew mi jàmme it jëfandikoo na loi bi lee moom nag bi ko ci atum 2012 la jamono ji nga xamante ne juróom-ñeent ci nit ñi nga xamante ñu ngi la ca mile two daal di woon rey jël seen bakkan fii ci biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne luwaa atte woon na leen ne dañ leen di rey ndaxte kat dañoo maatey ñu rey ay nit fii ci biir réew mi bu loolu antoo nag àdduna wërngal képp nag ñu bari ñu ngi doon ñaawlu di dàqalu loola eh, di wax ne nag former président bi di jaame ki nguuram waruñu woon a rey ñu ñu nga xamante ne atte woon nañ leen eh, tëj leen ci kaso yi ne dañ leen di rey fii ci biir réew mi benn ci beneen xët bu euh, ñi di standard newspaper foofa nag ñi nga xamante ñoom ñoo nekk soldaaru réew mi mu di Gambia Armed Forces ñoom nag daal dinañ wéral seen kàddu di dàqalu tuuma yi nga xamante ne ñu ngi ko yëkkati lal ko i ndord yi fii ci biir réew mi di wane ne nag am li nga xamante ne moom moo xew ci soldaaru réew yi nga xamante moo ñoo nekk foofu la ca diwaanu Daafo ndaxte kat jàpp nañ ne xibaar génn na di wane ne soldaaru réew yi nga réew mi yi nga xamante ñu ngi foofu la ca Daafo seen koppar yi nga xamante ne moom lañ leen waroon a fay daal dafa am xaaj bi nga xamante rek Gambia Armed Forces jël nañ ko ci ñoom euh, ñu dal di leen jox xaaj bi nga xamante ne moom moo des ci loola waaye na Gambie en forces ñëw nañ di indi ab leeral si loolu di wanee daal mbir mi ni mu fa demee daal mooy ne bu fekkee ne Gambian Armed Forces seen soldats yi dem nañ mission ca bitim réew lu xeetoog wàllu peacekeeping koppar yi nga xamante ne moom lañ leen dee fay du koppar yi nga xamante moom bi nga xamante ne moom moo dee faral di ñëw di dugg ci li nga xamante moom moo nekk keesu réew Forces ci wàllub liggéey yi nga xamante ñu ñu fay dem lii moo waral nag bu koppar yi ñëwee il faut rek mu am as bi nga xamante dina dugg ci keesu réew mi wax na ne nag jamono yooyu gannaaw bi nga xamante former président bi Seydi Jaame moo fi nekkoon lu toll ci fanweeri pasen lañ daan génnee ci xaalis boobu dugal ko ci keesu réew mi leneen lu si des ñu jox ko takkader yi waaye nag jamono ji nguur gu bees gi gannaaw bi nga xamante ne nii wax nañ ne réew mi daal nu muy doxee jamono ji daal am na li nga xamante rek lu bari séntu nañ ko si te amaguñ ko looloo waral jamono ji daal fukki pasen la ñuy génnee ci xaalis boobu nga xamante ne ñu ngi koy àggee eh, takkader yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di def eh, liggéey bi lee foofa la ci bili di eh, daafo pour rek delloowaat jàmm foofa mu ne nag am na wàññi bi nga xamante ne war nañ koy def ci soldaari réew mi nga xamante ñu ngi foofu la ca daafo ndaxte kat lu toll ci ñaar téeméer juróom-ñett ci soldaari réewu Gambie yu nekk ca daafo dinañ leen wàññi ndaxte dinañ génnee lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci soldaar yooyu su ko defee ñu si des ñu ca ca Dafo war nañ ne lii nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk United Nations ñoom ñoo sàkku loolu te wax nañ ne fleg ñaar fukki fan ak juróom-ñaari ci weeru décembre atum 2018 Gambia Armed Forces war nañoo def loolu delloo lu tollu ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci seen soldaar yu nekk foofu la ca Dafo mu ne nag dafa am anam bi nga xamante ne moom lañ koy defee ndaxte duñ jóg rek jël soldat yi delloo leen waaye nag dafa am ay sarta yi nga xamante ne moom lañ tëral ci loola benn bi bokk na ci mooy soldaar yi nga xamante ne seen wér-gu-yaram neexut lool ci biir réewu Dafo dañ leen di tànn delloo fii ci biir réew mi ñi nga xamante rek dañ yàgg di dem puisque pin ñooñu tamit dañuy may soldats yi nga xamante ne ñoom musuñu dem peacekeeping kon nag loolu tamit bokk na ci li nga xamante dañ ci sukkandiku waaye am na liñ gën a ràññee ci 15 percent United Nations Female Deployment Policy bi nga xamante ne amale nañ ko mu di pour dooleel jigéen ñi ci li nga xamante ne moom moo nekk wàllu liggéeyub soldat ci wàllu peacekeeping ni mu ne looloo waral nag jigéen ñi ñuñ say laal du bari ndaxte kat ñetti jigéen dong la ñuy laal te jamono ji nag Gambia fukki jigéen ak juróom-ñett ci seeni soldats yi ñoom ñoo nekkee ci biir li di réewu ah, lii di foofu la ci biir li di daafoo benn tey dañuy dem seeti rek beneen xët bu euh, ñii di standard newspaper foofu nag ñu ngi xamle ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambia Armed Forces jamono ji wéral nañ seen kàddu di xamle ne daal nit ñi jarul rek ñuy am tiitaange euh, ci li nga xamante ne moom moo nekk euh, TRRC bi fii ci biir réew mi ndaxte am na ñu bëri ñi nga xamante ci jàpp nañ ne am na ñenn ci soldaari réew mi bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne def nañ ñaawteef yëkkati ko jëmale ko ci askan wi xañ lañ lu xeetoog seen ak ak seen yelloo fii ci biir réew mi te ñooñu ña tey ñu ngi si biir li soldaari réew mi di liggéey ak ñoom wan nañu nag ñoom loolu jarul ñu say am tiitaange wala boog naka su dul noonu ndaxte kat Gambia Armed Forces képp ku nga xamante ne yaa ngi liggéey ci seen ron fii ci biir réew mi buñ la soxlee foofu la ci biir di TRRC bi pour nga dem gaarale fa li nga xamante ne moo nekk sa kàddu si laajte ki tontu yi fa war am ñu ne nag Gambia am fos dañuy taxaw ba gis ne daal loola dafay am képp kuñ soxla ci ñoom euh, pour rek ñu dem uyu ji foofu la ci biir di TRRC bi wax nañ ne loola dina am fii ci biir réew mi lii nag nekk na liggéey bi nga xamante ne mu nga bàyyee ko euh, ci réew mi mu di Gambia Armed Forces comme niñ ko jàngatee ci yéenekaay bi léegi mbokk yi xët bu njëkk bu mujj bu euh, ñi di standard newspaper fu ñu koy daanale rek moo di wàllu tàggat yaram ndaxte ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk Gambia seen scorpion si euh, mu di euh, ñi nga xamante ñu ngi doon jonganteeg ñi di Benin fii ci biir réew mi foofu la ci Independence Stadium bu Bakaw xamle nañ ne nag Gambia duma nañ benn ñetti bal ci benn lii nag nekk na li nga xamante ne mbégte ak kontaante la indil Gambia ndaxte jàpp nañ ne juróomi atu yàlla Gambia musu ñoo am ndam eh, ci jëflante yi nga xamante ne ñu ngi ko doon jëflante ak eh, réew yi nga xamante ñoom ñoo nekk foofu la ca bitim réew bi nag gis nañ ne li nga xamante ne moom moo nekk jongante bi lee gis nañ ne Gambia nag dañ leen njëkkoon a dugal eh, foofu la ca Independence Stadium bu bokk waaye mujjeen teel bi mujjeen nañoo ñëw rek ba génnee loola ndaxte kat ñetti bal dugal nañ ko ci Independence Stadium ba looloo waral nag féeti nañ ci kaw am am ndam eh, ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk beneen benn tey nag eh, a a qualifier ci a xew la ci biir di réewu Cameroon ci atum 2019 waaye bi tëroo jamono ji ndaxte kat dañ naagu woon ci eh, doorin bi ñu mujjee nag ñëw am ndam seen diggante ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk beneen mu nekk mujjeenteelu xibaar yi nga xamante rek dinañ si ànd ak yéen euh, ci yéenekaay bi di standard newspaper su ko defee ma bàyyi leen ak suma naataango di Omar Tunkara moom it mu dem seeti lan la yeneen xëy yéenekaay yi xëyee fii ci biir réew mi Omar jërëjëf euh, Seydou su ko defee mbokk yi dañuy euh, continuer rek euh, xibaar yi si programme bi di sunu réew ñu dem seet ji standard newspaper ñoom it si ajuma ji ñaar fukki fan yi ak ñette yi si weerum novembre bi nekk seen i xët mi njëkk mi nag ndaxte foofule jot nañoo waxtaan ak ñoo moom ki di professeur Henrietta Mensah Bonsu ki nga xam ne nag wane ne moom moo nekk professor of laws University of Ghana ki nga xam ne jamono ji mu ne mu ngi sàkku nguuru li a def seen i doxalin fii ci biir mi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gestu uh, li fi xewoon démb waaye tamit ñu xool seet naka la ñoo jubale ñi nga xam ne ñoom lañ tooñ ak tamit ñiñ tooñ uh, fii ci biir mi di uh, TRRC bi moom nag nee na si ëpp doole si réew yi nga xam ne nag wane ne commission yi mel ni na sos nañ ko fa mu ne nag li fa dee xew mooy ne ñi dee bokk si commission seen bopp nag ñooñu dañ dee faral di forcer gars yi ñuy génn seen réew maanaam dañ dee mujjee dem exil maanaam ni daal yaa jame fu mu toll nii ba tax na nag wane ne daal mu ne loolu moo tax daal mu ngi wax nguur gi seen bopp daal nañ fexe ba gis ne daal dinañ yëkkati karange bu takku su ko defee ñu daal di koy jox commission si nga xam ne jamono ji ñoom ñoo war a def gëstu boobu

mu continuer di wane daal mu ne affaire si yombul ndaxte mu ne moom situation bu mel nii mosoon na koo dal moom it comme ni nga ko weralee det nag wane ne daal mu ne ñi nga xam ne nag moom mooy docteur Baba Gale Diallo mu ne kooku jot na toog waxtaan ak moom ko ne daal dañ moom moo di sécurité waaye nag kooku li mu ko wax mooy mu ne ak lu moom du daw daal di génn li nga xam ne nag leen def am liggéey bi nga xam ne nag moom lañ leen sas te ñoom nag loolu nga ko euh, ne daal mu ne dañ a fee ba gis nga xam ne jamono ji ñoom lañ tooñoon ñoom itamit nag ñu mun a jéggal ñi nga xam ne ñoom leen toonañ nag fii ci biiram ndaxte mu ne loolu bu amul daal ñoom la loolu dañ koy dëkkee li nga xam nag moom moo di àdduna moom kii di jigéen ñi nag ko ni nga ko euh, wéralee euh, si yéenekaay bi di Standard Newspaper benn tey dañuy continuer dem seeti ji euh, Gambia Immigration Department Gambia Immigration ni euh, euh, ko joxe ndaxte nag fii ci na ñu bari ñu ngi wax ne nag ID card yi ñu ngi ñoom nag amaana yëfu xeet moom moo tax nekkuñ di leen ko jox ñeneen nag jàpp ne amaana ñoom nag lu ñu juddoo nag fii ci bureau moom moo andi li nga xam ne di coow mi nag jamono ji ñoom nag andi leen xibaar yi te buñ jaloog ñoom na andi nañ leeral li nga xam ne nag moom moo aju loola Sidi moom mi nga xam ne nag moom lañ fal yàggul noonu daal di koy def directeur général war ne daal euh, lii di ID card si bees nga xam fii ci bureau mu ne gars yi ñu si de ndaxte lu toll si 9000 maanaam juróom-ñeenti euh, junne juróom-ñeenti junne ak euh, nag ji joxe na ko joxee Kanifing municipality wane ne daal ba léegi toll si ñeent fukk ak juróom-ñeenti lii di carte wane loolu ko jox li nga xam ne nag moom moo di nit ñi maanaam mooy nit ñi nga xam ne dina nag fii ci biir réew mi directeur général Touré nag wane ne daal

Diji Touré si kàddu yi na ko mu ne si la la ñoo jox li nga xam ne nag moom moo di cartes yooyu am na cartes yu bari nga xam ne ñu ngi ay Gambian te loolu mi bëgg nañoo gis ko jox ñeneen ñi dafa wute moom moo tax jamono ji coobaa bari fii ci biir am na ñoo xam ne fa demee fu ñu leen dee interviewé foofu lañ dee rejeté gars yi ndaxte am na laajte yi nga xam ne bu ñu la ko laajtee bu dee sax andi nga kayit yi nga xam ne nag moom lañ la laajte yëpp bu dee mënuloo tontu laajte ni ñu la ko laajtee dañ lay teral li nga xam ne nag moom moo di ID card te ñoom dafa am lu waa ak sarte nga xam ne nag moom lañ teral te ñoom ci loolu la gars yi nekk di wéyee nag fii ci bërëm mi moom moo andi li nga xam ne nag moom moo di coow bi waaye nag wane ne daal 9602 ID cards wane ne joxee gum nañ ko waaye nag lu toll si 49 nit la gars yi rejeté gum te uh, mu ne nag kayit kayit yi nag ni ñu ko nekk di joxee daal wuute na nag ak nit ñi ni ñu ko nekk di nekk di waxee nag fii ci bërëm mi moom kii di uh, Dj Touré si leeral li nga xam ne nag andi na ko si yéenekaay bi di standard eh, ni ki ajuma ji benn tey dinañ dem seeti ji waa ñaani nekk foofale sa wasu wasu nag mu ngi nekk dëkk bi nga xam ne mu ngi foofale sa biir ñaani district bu Central River Region ñoom itamit nag wax nañ xalaat si li jëm si baatu réew mu bees bi nga xam ne war nañ mooy constitution bu bees bi nga xam ne war jamono ji ñoom ñu ngi dox fii si biir réew mi di diisoo bi si li jëm nag si constitution bu bees war nañ koy defal pour kenn ku nekk si nit ñi wala boog si askan bi fii ci biir réew mi ñu was seen xalaat bañ demee lu ñu ooyee gay marriage maanaam góor ak góor di sëy ñu ne ñoom nag si di baat réew mi ndaxte loolu boo xam ne bëgg nañ naka ñu daal di koy fàttal si li nga xam ne naka moom di lii di laago euh, yi mu ne nag ñu dooleel di lii di euh, réew mi mu ne constitution bi dafa war a li nga xam ne naka moom di laago fii ci biir réew mi ndaxte ñoom laago dafa am jafe-jafe yi euh, bari nga xam ne ñu ngi ko dund jafe-jafe yi bari nga xam ne ñu ngi ko dund si yi ak yeneen bërëb yi naka fii ci nag euh, ñoom daal lu ñu mooy commission bi nga xam ne dafay seetu béykat nag seen jafe-jafe ak tamit seen liggéey nga xam ne nag ñu ngi koy si nga xam ah, am na ñoo xam ne dañu ñoo dëkk fi lu ëpp fukki at nag bala ñoo doon

bi maanaam eh, waxtaan yi ne nag ñu koy def si li nga si mbirum li nga ne nag moom di réew mi nag comme ni ko gars yi war a kon ne daal lii moo doon li nga ne jamono ji seen i njaaxare la te bëgg daal ñu bàyyi ko xel bu baax si li jëm si constitution bu bees bi ne nag war na koy defal nag fii ci mi fi ñuy daanalee sunu eh, xibaar rek mooy euh, ñi di authorities nga xam ne ñoom ñoo nekk di liggéey si Gambia Food Safety mooy buntu nga xam ne moom mooy seetu wàllum lekk bu óor gi fii ci biir réew ñoom nag ñoom ñoo wane ne daal Ah, dañoo joxe notice notice bi nag moom moo aju si benn compagnie bi nekk foofu la sa kanifin bi ñoo ooyee Sunshine Industries ñoom nag dafa am ah, ndox bi nga xam nag ñu ngi koy defar bi ñoo ooyee bes ndox bi nag wane ne dafa am li nga xam ne jamono ji nag moom moo si rax wane ne moom moo tax daal ñu ngi yëgal askan bi ne képp ku ko jënd da nga fee nga daal di koy delloo nag fi nga ko jëlee ndaxte nag ndox boobu jamono ji fu mu toll nii la nit nag mënu koy jëfandikoo nit mënu koy toogee mënu koy naan naka fii ci biir réew mi kon nag loolu doon na loo xam ne naka dafa méngoo ak seen sarta ak seen luwaay nga xam ne moom lañ teral si wàllum lekk gu óor gi naka fii ci biir réew mi wane ne bagage yi la gis nañ ne daal dafa am li nga xam ne nag di ndox booba ba tax nag wane ne compagnie bi jamono ji ay pexe yi nga xam ne jamono ji dafay a tax ba mel ni su amee mun koo topp si biir marché bi ñu mun a deelewaat li nga xam ne di butéel yooyu moom moo tax ñoom tamit daal fu mu toll li ñu wane moom moo di ne képp nga na war a di koy bi wala bu fu ko jëndee su ko defee ñoom ñu mun koy seggaat bu baax ñu xool li nga xam ne di problème képp ku ko jëfandikoo mën na laa jural jafe-jafe nag si li nga xam ne nag moom moo di sa wér-gu-yaram kon nag wane ne nag loolu moo tax ñu ngee sàkku li nga xam ne nag moom moo di defee ñu seggaat bu ne ah, ñu ngee sàkku ko ah, a continuer daal di def ah, seetaan rek gannaaw buñ bàyyeekoo ak yéenekaay yooyu rek dañuy ñëw Euh, dalal gan bi nga xamante ne rek am nañ ko fii ci biir kër gi mu di Ibrahima Dabo moom mi nga xamante ne moo yore wàllub jokkalante yi ak xibaar yi euh, ci euh, li nga xamante ne moom moo nekk TRRC bi fii ci biir réew mi TRRC bi nag sos nañ ko fii ci biir réew mi te dara yëkkatiwul leen moo di pour ñu def ab gestu ci ñaawtee fi nga xamante ne ni wax nañ ne xewoon na fii ci bureau mi ci tolloog ñaar fukki ak ñaar gannaaw bi nga xamante ne former président bi di Jammeh mu ngi jiite woon réew mi mu am ñu bari ñi nga xamante jàpp nañ ne dañ yàq seen ak seen yelloof mu am ñu bari nga xam xamuñ fan lañ féete ci biir réew mi mu am ñenn ñi nga xamante ne ñoom fa lañ jaar laago ak yeneen yi nga xamante ne xew na fii ci biir réew mi waaye nag TRRC bi moom lañ daal di sos fii ci biir réew mi pour ñu càmbar mbir mooma su ko defee ñu xam fan la mbir mi féetee dinañ ko dalal fii ci biir kër gi rek su ko defee ñu tàmbali waxtaan yi ak moom moom lañ am fi ci biir kër gi ndara waxtaan ak moom lépp li nga xamante rek mu ngi xeeto wàllu TRRC bi fii ci biir réew mi eh, su ko defee rek Imran dañ lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Seydou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu Omar tamit maa ngi nuyu ah, ñi seen mbokk yi seetaan tamit ah, si suba si nii ah, jërëjëf. jërëjëf jaajëfal nañ la bu baax a baax ci nuyoo bu am solo boobu. waaye nag dañuy dugg ci waxtaan yi euh, waxtaan wi nag euh, dara waralu ko lu mooy TRRC bi nga xamante ne sos nañ ko fii ci biir réew mi euh, TRRC bi bu mu sosoo ban tey yàgg na waaye ba léegi dafa mel ni mbir mi tàmbaleegul ndaxte kat ba léegi xamaguñ fan la mbir mi féete ci wàllu càmbar yi nga xamante ne war ngeen koy def lan moo waral tardement bi ci liggéey bi nga xamante ne war ngeen koy tàmbali ci réew mi. TRRC bi euh, dégg la nit yi gisaguñ euh, ñu ñëw si télé beeg yooyu pour def euh, comme biñ na jaani commission bi niñ doon doxale di wane kees yi si télé bi waaye liggéey baa ngi dem si ron unit bu amee wàllu gestu bi ñu ngi def seen liggéey fuñ toll ni ñu ngi seen gestu yi ñu nit ñu amee wàllu tasibaar geeg giseeg nit yeeg déggoo geeg yooyu ñu nit ñu ngi def soo am na liggéey yu bari yu nekk si ron di dem daal xëj na waxtu bi ñu doon plan pour euh, def live hearing yi mooy euh, pour wane ko si tele bi euh, boobu noonu moo xala des tuuti waaye loolu noonu li ko waral mooy suñ headquarters bi mu nekk Duns fii mm-hmm. pareewut daal ba léegi euh, soo boobu lañ loolu la ñoo xaar waaye euh, xam naa ne dinañ door loolu noonu tam si lu yàggul daal ndax victime si nit ñi nga xam ne dañ jàpp ne ñoom euh, dañ yàq seen àq ak seen yella fii ci biir réew mi tàmbali nañ di testify nan dafa mbir mi demee ak ñi nga xamante ne joxoñ nañ leen baaraamu tuuma wax ne bokkoon nañ ci ñaawte fi fii ci biir ndax loolu tàmbali na am déet waa loolu loolu yaaga naa tàmbali sax parce que euh, bala ñoo door ci RRC bi sax euh, victime centre bi ñu ngi woon fii ñoom ay victime si seen boppa ñoo euh, déggoo woon door ko sos ko daal so ñoom ñu ngi doon jël nit yu bari comme ñiñ tooñoon seen information ak li leen daloon ak lu ne everything daal about seen li leen dal so ñoom ñu ngi doon keep record yooyu noonu so TRRC bi bi mu ñëwee dañ dooroon di liggéey ñoom parce que ñoom am nañ information boobu noonu ba pare so ñu ngi liggéey ñoom waaye tamit ñu ngi liggéey ak euh, directly ak victimes itam léegi so am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di joxe seen euh, report yooyu noonu waaye loolu tamit da ngaa gis ne lu tax euh, feeñagut bu baax moo nekk setulaguñ daal suñ place bi ñu war a def bés waaye looloo tax waaye liggéey bi moom mu ngee dem gestukat yaa ngi gestu which means ne Euh, victims si seen report yaa ngi ñëw euh, ñu ngi di la ñoom euh, victim centre bi ñoom amoon nañ about 3000 reports yi jóge si victims yi. maanaam jamono ji yéen jot ngeen ci loolu yëpp. waaw soo ñu ngi liggéey waaye xam nga affaire yi commission du wut lu bees ci adduna si ndaxte am na réew yi nga xamante rek xam nañ ne xew na foofa ba noppi. te nag am na càmbar yi nga xamante ne jot nañ koo def ci commission yi nga xamante ne am na ci lu wër àdduna wërgal képp laata ñoo dugg ci wàllu Gambia Euh, ndaxte yaakaar nañ ne Gambia wàllub dictatorship moo waral ñu ne dañ sos commission bi euh, pour ñu def càmbar ci nit ñi nga xamante ne amaana dañ violate seen human rights euh, waaye nag commission bi mu nga tàmbalee ci biir réewu Bolivia Bolivia ñoo njëkk a amale commission waaye nag ñoom Euh, son commission bi da gis ne li ko waraloon mooy pour nit ñi nga xamante ne dañ jékki-jékki rek ne meles kenn xamul fan lañ def maanaam dañ di japia ñeneen ñi amaana dañ leen rey ñeneen ñu tëj leen ci place yi nga xamante kenn xamul fan la waaye bu ñu defee seen commission boobu ba noppi amul benn report bi nga xamante ne gaaral nañ ko di wane ne lii moo waral lii ak diw sangam nii lañ ko reyee wala kii ak yii amul benn report bi nga xamante ne daal tend nañ ko Euh, soo ñu ragal ndax euh, loolu duñ ko gis fii ci biir réew mi amaa na coow li bari na ne commission bi commission bi waaye ndax at the end of the day dinañ war a mun a gis ne daal euh, lépp luñ bëggoon a xam ci wàllu TRRC bi dinañ ko xam ci mujjanteel. waaw wax nga dëgg commission yi si àdduna si yu bari am nañ waaye am na yu bari yoo xam ne tam am nañ ay daj daj ay problème yuñ daj ba liñ doon séentu. mujjee wuñ ko see gis waaye bu Gambia bi mun nañoo dalal xel nit yi pour wax leen ne si commission bi dañ ko teg si sarta ay loi ay loi daal ah, which is TRRC ak 2017 bi boobu noonu dafa eh, boole si liggéey eh, commission bi ne de il faut ñu ah, génnee report su liggéey commission bi jeexee ñaari at su jeexee foog commission bi génnee report balaa ñaari ati sax su benn at bi passé dinañ génnee yagum report boo xam ne interim report la ah, boobu dinañ ko produce waaye su mbir mi yëpp jeexee tam si ñaari at yi dinañ am pour génnee report boo xam ne boobu mooy wane liñ gis liñ gestoog liñ gis ak liñ xam yëpp ak tamit recommandation yiñ uh, jo li ñoo jox pour nguur gi war a taxaw si ay tànka pour gis ne li fi xewoon du fi amati ba pare ñiñ tooñoon uh, saafaral nañ leen uh, liñ leen tooñ tamit waaye tamit ak bi emul si loolu rek sax de dafa tamit taxawal ne suñ defee loolu suñ génnee report bi ba pare président bi tam within six months dafa war a génn si wax nit yi euh, moom it naka laa doxalee euh, recommendation yi ñu ko euh, wax ne yooyu lañ foog ne noonu la ko war a doxalee yéen TRRC bi loolu leen foog ne loolu war a def moom tamit dafa war a génne report moomit pour wane ne waaw nii ak nii ak nii laa ko nar a doxale pour recommendation commission bi mu taxaw daal seen mandat bi ci ñaata at la Eh, mandate bi two years la ñaari at la ah, waaye tamit it's open pour ah, ah, ñu extend ko su fekkee ne necessary na pour oh, su fekkee ne jar na pour ñu extend ko waaye suñ liggéey right now ñu ngi ko teg si ñaari at yi daal foofu la ñu war a est-ce que suñ ko waree extend loolu du nekk lu gudd ci réew mi eh, eh, ndaxte affaire yi dictatorship la amaana woo civil woo amutoon fii ci biir réew mi waaye ñaar fukket ak ñaar la jaame jiite woon réew mi ñu jàppane Eh, dafa am ñi nga xam ne nasaxal na seen àq ak seen yella looloo waral commission bi waaye dañuy seeti foofu la ca réewub Sierra Leone Sierra Leone amale nañ civil woo bu métti bi nga xamante rek fukki ak benn la am ñu bari ñàkk si seen barkan ñu bari ñu jëlee ci ab laago te ñoom seen commission bi ñaari at lañ am li ñu war a tënk yëpp ñu tënk ko jël recommandation yi ñu war a def am na yenn yi ñu matal waaye am na yi nga xamante matal luñ ko waaye at gis nañ ne ñoom seen mandat bi two years la est ce que yéen bu ngeen ba weesu ñaari at yi loolu du nekk lu gudd ci askan wi. ah loolu dañ ko def si loi pour suñ demee ba nga fe xam ne loolu war naa am. Euh, du nekk loo xam ne dañoo dem di càngati dañoo am pour isiwaat beneen luwa parce que liggéey commission bi moom foog mu tegu si yooni luwa moo tax ñu def ko fa rek waaye ñun suñ liggéey ñu ngi séentu ñaari at loolu lañ nekk di plan euh, suñ investigation yi gestu yeeg yooyu yëpp si diggante ñaari at boobu noonu lañ ko plan euh, moom lañ fas yéene pour jeexal suñ liggéey bi yëpp si ñaari at boobu noonu waaye léeg dañ ko fa def rek pour sóoraale ndax léeg-léeg kenn ah, xam ngeen bu ngeen demee ah, ah, ba ba gis ne seen ñaari ati jot na te àggu leen si càppaandaw gi ngeen am lu ngeen ci dooli foog ñu dooli si tuuti waaw waaye loolu rek la waaye ñaari at yi si loolu lañ plan pour def suñu liggéey bi yëpp mu uh, sotti jeex waaw Mr Dabo sax kàddu yi rafet nañ trop waaye li ma bëggoon a xam mooy yéen ban critère ngeen di use pour mun a identifier kii victime ak ki nekkul victime Ah, boobu noonu nag ah, duma ko mën a a agum right now waaye ah, loolu is up to investigative unit bi mooy ñi amee wàllu gestu yee yooyu. waaw because sànq moo tax laaj loolu. because man tey mënoon a nangam so xëy na affaire réparation nit ñi déggaw ko gom mhm. ne ñëwee amaana ñoom local people gom already bu ñu ñëwee taxaw ba joxe statement rek suñu waxee suñu paree nañ leen jox xaalis loolu plié na seen mayens yi ndax loolu du andi jafe-jafe si commission bi ah, dëgg la waaye looloo tax ñu am investigative unit bi ñoom ñoo amee wàllu gestu yi soo nit mun naa ñëw anybody si réew mi koo xam ne dafa fiil ne victim la parce que commission bi euh, tamit euh, focus bi yëpp euh, dafa gën a nekk si victim si daal parce que mënoon nañoo toog ñëw nguur gi ne dañoo jàppa ñi defoon yaaxa yaaxa yi rek mënoon nañoo def loolu yóbbu leen koot jeex na tëj leen kaso wala def leen lu ñu leen di def waaye kon dafa mel ni dañoo faate victimes yi daal te ñoom ñoo daj soo liggéey commission bi mooy pour jox victimes yi chance pour ñoom it ñu génn ñu ñu ci déggal li leen dal parce que léegi-léegi na xariwu si xol nga daj yéen ay ba pare kenn xamut li nga daj ak yooyu léegi su ko defee su nit ñëwee joxe explanation am joxe story am duñ la wax ne waxuloo dégga wala ah, gëmuñ la ak yooyu loolu moom euh, foog ñu jaarale ko si gestukat yi su ko defee ñooñu def seen liggéey ñoom tam su ko defee comme li nga wax ni dinañ am criteria boo xam ne boobu noonu la ñoo seetee naka la ñoo catégoriser victimes yi su ko defee euh, commission bi tam mun a def seen liggéey daal. waaw léegi-léegi maa ngi rif benn paper maa ngi gis ñu ngi wax affaire yi sécurité commissioners yi. waaw comme yéen comme yéen seen sécurité pour ëllëg si biir bu leen bi waaye how about the euh, victimes seen bopp because tey su ñu ñëwee taaw si commission bi mu joxee ay kàddu. eh man de soldat laa woon ma man maa rey diw sangam how secure is the person because kooku élection bi su demee mu tëdda mu nelaw ndax ki mu wax ne ñooñu la rey ay mbokkam ñooñu sa ay mbokkam suñ suñ déggee muy wax loolu ndax ñooñu duñ bugg a react su dee ñu ngi dëkkee ak mer boobu. maanaam ñu retalier. waaw retalier ndax ñooñu dee à secure waaw yooyu yooyu sóoraale woon nañ ko bi ñoo plan liggéeyu commission beeg yooyu yëpp loolu dafa bokk sax si mbir yi gën a waxtaanee ah, am na sax ñoo xam ne tamit comme jigéen yoo xam ne dañ daan woon seen kow ak yooyu ñooñu noonu xëj na duñ ragal kuy ah, retaliate wala dara seen kaw sax waaye sutura bi ñoo ah, bugg pour am sax. gambien bi gambien bi gëm-gëm bi mu am. ndaxte ñu def xam nañ ne euh, yombul pour nga gis Gambien bi nga xamante ne dañ ko sàkku mm-hmm. maanaam euh, tëddoo ko ci anam yu anam yi by force mu génn diisoo loolu askan wax ko askan loolu Gambien bi euh, dafa minut loolu yéen naka ngeen di mm-hmm. jànkonte ndaxte am na ñu bëri ñi nga xamante ne ñu ngee dundee loolu ci biir réew mi waaye ndax dinañ am kuréel bi pour dem jàkkaarloo TRRC bi wax ne man lii lañ ma def ndax kuréel boobu dinañ ko am. Ah, ñu ngi waxtaana jigéen ñi ñu ngi am sax li ñu ooyee women circles yoo xam ne ah, dañ ko bañ bi nga xam ne benn góor du fa nekk ñoom jigéen ñi neen ah, ñi nekk si commission bi commission bi mu ngi am unit boo xam ne eh, wàllu jigéen ñi rek la eh, mooy liggéeyam pour mu féete ko eh, dox si loolu dañ dee am women circles yi comme li ma wax nii yoo xam ne jigéen ñi nee na faa toog. Um, li ñoo waxtaane yëpp si sutura la dañ ko bañ benn nataal du génn si uh, social media bi du génn si benn media uh, seen waxtaan itam dara du si génn soo tamit uh, comme li Omar doon laajte rek mhm. the same thing with security ñoo xam ne xëj na dañ ragal coup dala seen kaw suñ ñëwee génn wax dara yooyu yëpp sooraale nañ ko so li ñoo liñ li liñ plan mooy ku nekk des na si ban façon problème nga am daal Ah, wala lan nga ragal su ko defee ñu ngi am ay plan nu ñoo fexee ba nga xam ne xëj na dinañ nuba sa kanam kenn du la gis wala dinañ eh, ceeñ sa baat bi eh, ba kenn kenn du mun a xàmmee sa baat ak yooyu so am nañ plans yu bari daal yoo xam ne ñu ngi ko def in place pour ñoo xam ne parce que xam nañ ne am na ñoo xam ne xëj na si security forces si si nguur gi sax fu mu nekk nii ñu ngee liggéey nañ ragal a xam xam nañ dëgg waaye xëj na dinañ ko ragal a génn si wax waaye ñooñu yëpp ñu ngi leen di garanti ne ñu ngi am ay euh, euh, plan euh, yoo xam ne ñu ngi ko taxawal yoo xam ne sa sutura du génn si biti dinañ fexe ba nga xam ne di nga wax sa digga dinañ ko gestu waaye tamit yow si sa boppa du nekk loo xam ne dëkk bi yëpp ay xam ne kii diw moo wax lii wala yooyu. waaw independence of the uh, commission tamit boobu tamit doon loo xam ne um, nit ñaa ngi ko doon correction because limoon nañ ne am na ñu bokk seen biir ñi nga xam ne amoon nañ loxo. si problème yi nga xam ne moom amoon fii ñu loolu bokk na si li gën a tax seen liggéey bi mu gën a critical loolu beenaal ñaareel mooy déggoon nañ fi ku mel ni Yankuba Colley di wax ne mhm. even before ngeen start commission bi sax yéen already am ngeen gom-gom bi ne liñ fi tudda Yaya Jammeh li ñu ko tuumal ne yëpp moom moo ko fi def moom moo ko fi def already yéen am ngeen gom-gom boobu before even start loolu ah. how independent is your commission li ma waxagum ah, am na commissioners si ñoom eleven lañ fukk ak benn mhm. am nañ euh, li ñu ooyee secrétariat bi secretariat bi amuñ liggéey si decide lan la commissioners yi di euh, dogal si li ñoo gestu daal euh, secrétariat bi seen liggéey mooy pour dimbale commissioners yi ñu taxawal commission bi mun a def seen liggéey niñ ko war a defee commissioners yi nag ñoom nit yi ñoo leen taana si gox yi nekk si réew mi yëpp juróom benni gox wala juróom juróom-ñaar waaw so ñu leen di taxawal eh, nit yaa leen nominé ah, ba pare biñ leen taanee ba pare deñ announce two weeks lañ joxoon nit yi announce nañ ko si Facebook bi announce nañ ko ci news bi génnee nañ ko fu nekka pour koo xam ne am nga loo xam ne danga nga ne looloo tax ba kii warut a taxaw bokk si commission bi rek ah, génna sil nga wax ko su ko defee ñu génnee boromam si commission bi waaye kenn jógut taxaw ne kenn si ñoom Ah, am na loo xam ne xëj na lu lu lu lu ñaaw la wala lu ñuul si seen ah, caractère luy war a tax ba duñ mun a nekk si commission bi so commission yi seen nekk si commission bi dafa leer niñ ko ah, dogalee woon. waaye waaye benn tey Mr Dabo dafa am loo xamane tamit eh, eh, eh, war naa leer ndaxte. Euh, yaakaar naa ne commission bi euh, lu ko gën a tax a jóg mooy euh, former président bi di Jammeh ndaxte moom moo jiite woon nguur gi fi nekkoon te nguur googa moo waral commission bi ci boppam ndaxte ñu bari dañ jàppane ne respect guñ woon lu xeetoog wàllu àq ak yellofu doomu aadama ñu bari jëlee nañ ci loraange waaye nag ci ay kàddu yi nga xamante dégg nañ ko ci jege ñaale former président bi di Jammeh bokk na ci former mayor Yankuba Koli mhm. wax na ne Jammeh duñ ko mus di àttee fii ci biir réew mi ndaxte am na li nga xamante ne ñu ngi ko doon wax ne Jammeh dañ koy yóbbu ca réewu gaana àtte ko foofu wala ñu delloo ko fii ci biir réew mu ne Jammeh ci boppam kenn du ko àtte ndaxte amul dara li nga xamante def na ko luy waral ñu àtte ko yéen commission bi gannaaw bi ngeen defee seen jàngat ba pare yéen est-ce que bu ngeen gisee ne eh, jar na pour àtte ñu àttee Jammeh di ngeen recommande pour ñu àttee ko fii ci biir réew mi am déet boobu tamit nag euh, moom euh, euh, mista Colley mi nga wax moom dégluwuma waxam bi soo duma mun a wax si loolu waaye dinaa mun a leeral si commission bi si seen bopp ak taxawaay buñ taxaw si façon comme problème bi nga wax nii fu mu nekk nii man bokkuma si commissioner yi so man duma mun a wax lan la ñoo recommend mhm. moo tax ma ne la commission bi si liggéeyam su jeexee ñaari at yi dina joxe recommendation recommendation bi dafa méngoo ak liñ gestu ak liñ gis liñ jànga si gestu yi ñoon def yëpp foofu la ñoo mun a euh, décider wala foofu la ñoo mun a recommander naka lañoo ñoo mun a doxalee jëm kanam daal possibilités yi nag yi ñoo waxtaanee bari na yi mun a xew bari na ah, dina am xëj na mun naa nekka euh, boo xam ne dinañ recommandal président bi mu euh, fexe nu ñoo isee Yaya Jammeh baak su fekkee ne moom moo def yiñ ko tuumaal ne moom moo ko def waaye loolu duñ ko mun a wax léegi foog commission bi def liggéeyam waaye ñoom nee nañ am na luñ xaatim already ak Gambian government bi eh, bokk na si ñi nga xamante ñoo nekk AU ak EU ne wane na Jammeh duñ ko àttee fii ci biir réew mi bokk na ci nangutoo yi ñu am balaa jàmme di bàyyi réew mi est-ce que yéen loolu du du du du bunu xatal seen liggéey bi ngeen war a def. Ah, boobu bokkut ak ñun suñu liggéey bi ñun suñu liggéey bi comme ni ma ko waxee TRRC ak bi moo ko ah, taxawal. leeral na li ñu war a def yëpp ñun lu rek la ñoo doxal nguur gi li ñoo doxal ñun ñoo nguur gi duñ benn nit yi du waruñ ñoo ah, jaawal nguur nguur gee ñu taxawal waaye bi ñu taxawalee fu mu nekk dañ taxaw suñ tànki bopp ñëw nguur gi ak li ñoo decide ak li ñoo def ñun liggéey bi ñoo def yëpp mooy li ñu TRRC ak bi sant maanaam def njàngat def ay gestu su ko defee ngeen am recommendation bi nga xamante di ngeen ko put into place ngeen jébal ko Gambian government den di final decision des na ci loxo nguur gi waaye su dee nguur gi mu ngi am doxalin nga xam ne mu ngi koy def already fooguloo ne loolu dafay undermine waaye man xaw ma ndax nguur gaa ngi am doxalin yi moo doxal fu mu nekk du ma mun a wax dara si loolu li ma mun a wax mooy commission bi dinañ def suñ liggéey dinañ def suñ recommendation dinañ ko jox nguur gi nguur gi lim nekk di def léegi wala li def si kanam loolu foog naa foog ñu laaj ko nguur gi mooy gën a euh, óor mooy gën a leer tamit commission bi mbaa du ekkati coole si dëkk bi comme ne waaw man maa defoon lii man maa defoon léeg su ko defee ñi merewante fii mbaa du andi coow si dëkk bi euh. nit ñi duñ fooguma ne dina war a isi problème si réew mi ba pare bokk na si suñ liggéey yi tamit ne nekkut ne dañoo gestu rek ut kana waxoon lan ak kana defoon lan waaye tamit ah, boolewaat nit yi ñun ñëpp ñu gis ne Gambia benn Gambia la ñun ñëpp a ko bokka ah, ñun ñëpp dañ war a dellu jàppoo déggoo pour mun a yóbbu réew mi si kanam loolu tam bokk na si suñ liggéey yi ah, loolu tax na ba ñu ngi am unit boo xam ne reconciliation unit lañ ko ooyee ñu ngi waxtaan ak kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi waxtaan ak xale yi kañalen yi groupe yu bari daal pour seet nu ñoo fexee ba déggoo mun a amati si réew mi parce que xam nañ ne eh, nguur yi passé isi na ay xaajaat looyu eh, bari fii nii Euh, so ñu ngee try nu ñoo seetee pour isiwaat euh, ñëpp ñu nekk benn ñun ñëpp ñu xam ne Gambia benn Gambia la suñ Gambia la ñun ñëpp a war a bokk pour yóbbu ko mu jëm kanam waaye waaye Mr Dabo leneen lu am solo tamit mooy bokk na ci ñenn ci victimes si mhm. euh, nee nañ dañ leen duma yu fii ci biir réew mi te ñoom ñu ngi wéyeeg ay jàngoro yu bari fii ci biir réew mi feebar nañ mënuñoo faju te ñoom nag jàpp nañ ne bu fekkee ne joxuñ leen attention bi nga xamante ne moom lañ soxla fii ci biir réew mi ci seen wàllu biir bu yaram amaana amul solo pour ñu war a mën a dem si kanami TRRC bi pour ñu testify yéen nan ngeen di dundee loolu. waaw loolu dëgg la ah, balaa ñëw annonce loolu balaa gars yi di annonce loolu noonu si public bi sax ñun dañ demoon ah, waxtaan ak gars ah, man bokkoon naa si ñu demoon pour waxtaan ak ñoom. gars yi foofu la ñu leeralee ne ñoom duñ bokk si mbir mi fekk fexewuñ nu ñoo dimbalee gars yi ñu faju daal so xamoon nañ loolu waxtaan nañoo ñoom tamit wan nañ leen ne ñun TRRC bi. 15 octobre bi lañ ñu door a sas so suñ liggéey si uh, waxtu boobu la door rek waaye biñ ñëwee liñ njëkk a gestu ak liñ njëkk a gis moo nekk ne uh, am na victime yoo xam ne soxla nañ faju torop torop torop torop depuis loolu uh, docteur Baba Diallo lim lim dooroon mooy di seet naka lañoo ñoo mun a fexe be dimbale ñooñu noonu parce que duñ mun a xaar ba ñaari ati commission bi yëpp jeex. ñu bind recommendation balaa loolu di am so loolu dafa bokkoon si force uh, priority things yi mu doon uh, jéem a fexe nuñ ko uh, saafare daal. léegi fu mu nekk nii xam naa gis ngeen announcement bi make nañ announcement ne binda na to minister of health and social welfare wan gaay ne um, soxla nañ commission bi soxla nañ pour ngeen gestu jox ñu. turi euh, victimes ñoo xam ne euh, dajoon nañ euh, am nañ ay gaañu gaañu si nguuri ñaar fukki at ñaari yaay jaame gi passé bugga nañ ngeen analyse seen medical problème ngeen jox ñu report bi su ko defee ñun ñu xam naka la ñoo fexee pour dimbale saafaral gaay yi liggéey boobu mu ngi si koom waaye docteur Baba comme ni maa wax ni mu ngi méngoo ak ay organisation yoo xam ne ñu ngi outside am na ñoo xam ne ñu ngi fii ay doctors ay different organisations daal pour seet nu ñoo mën a dimbalee ñii nii ñoo xam ne dañ soxla faju si réew mi fii ak ñoo xam ne dañ soxla faju euh, si biti waaw loolu sax am na solo euh, sole euh, mistara because foofule mhm. nit si si façon yi anam lañ ngeen koy def ndax xaalis rek ngeen di joxe wala la ngeen di jox gars yi xaalis ndax xaalis rek la mooy nekk wala da di dimbale gars yi gars yi dem bitim réew de faju ji wala nu muy demee ci boppam. Euh, réparation ci nag euh, moom nekk na mbir moo xam ne fu mu nekk nii sax si biir commission ñu ngi waxtaanee ni ñoo gën a déggooyee ak euh, nit yi ak gën a leeral mbiri réparation bi nii waaye réparation commission bi nekkul di ko xelaatee si mbiri joxe xaalis rek parce que ñun yëpp xam nañ ne réew mi amul doole bi boo xam ne dina mun a jox ay thousands and thousands of victims xaalis bu. boo xam ne dina leen njëriñ njëriñ boo xam ne dina dina dina. ah ñoom dégg nañ ne already yéen a ngi am billion dollars gaa yi dégg ko de. <laughs> boobu nag ma lu ma see xam naa ne daal mun naa leeral leena moom amuñ 15 million amuñ 15 billion dollars ah, loolu moom mun naa koo leeral fii waaye li nit yi di wax si biti dégguma ko ah, soo duma mun a comment si loolu waaye naa leen mun a leeralal ne moom 15 million amee wu waaye jox nañ leen xaalis dooleel nañ leen ah waaw ñu ñoo dooleel ñu ngi ñoo dimbale waaye tamit léegi-léeg mbir mi duy leer ni mu war a leeree léegi-léeg dooleel bi commission yi ñun part of ah, li ñu ooyee transitional justice Uh, process bi la mm-hmm. transitional justice bi Jaane commission bi bokk na si uh, constitutional review commission bi mm-hmm. bokk na si lands commission am na ñu nit bokk nañ si léegi-léeg daf dee nekk xaalis boo xam ne dafa dem pour yooyu yëpp waaye xëy na niñ ko dee neetale oo niñ ko dee déggee daf dee mel ni TRRC bi rek lañ ko jox. waay waay waay uh, loolu des na si media bi pour ñu gestu ñu xam information. waaye yéen am ngeen ci wàll bu rëy am ngeen ci wàll bu rëy nañ si wàll. waaye nag ah, mooy li ñoo wax ni fooguma ne waala boobu noonu rëy na rëy boo xam ne dinañ mun a jox nit ah, ah, xaalis boo xam ne dina la njëriñ njëriñ boos bu boosee war a yaakaar ne dina la dimbaleelu yaakaar léegi ñun ba pare tamit commission bi foog ma leeral lii ne nekkut ne eh, réparation bii nii pour fay nit yi la ak li nga di nga dajoon yëpp ñu bari liñ daj kenn mënut leen koo fay si xaalis doo ko bëggee xayma si xaalis du dem du doo ko mun a fay léegi commission bi réparation li ñu see jublu mooy pour just wan nit yi ne ah, xam nañ ne dañ ngeen dara si loxo ah, nguur yi paase buuñ leen a seetaan tooguñ di leen seetaan ñun réew mi xam nañ ne tooñ nañ leen tooñ nañ leen ah, dañoo fexe pour seet naka dañoo mun a dimbale wante pour dimbale leen ngeen mun a taxawaat seen ñaari tànk waaye tamit xam nañ ne duñ mun a def lu noonu mu sotti parce que réew mi li ma comme ni ma ko waxee doole bi eegut si dëkk yi ñu ëppa doole sax comme euh, euh, South Africa sax seen réparation bi euh, fayoon nañ ay nit yi xaalis ak yooyu waaye ba léegi seen nit yaa ngi complain ne foofu sax laa bëgg jublu ndaxte rawatina rawatina réew yu bari fii ci tundu Afrika mhm. Euh, suñu amalee seen commission yu nu mel euh, recommandation si nga xamante ne moom la commission bi di eh, eh, teg ci table bi pour nguur gi jëfee ko mm-hmm. ëpp doole bi yëpp nguur gi duñ ko nee def soo xaw ma indi case of the Gambia ndax yéen yéen a ngi diisoo nguur bi di leen wan ne pour ñu jox leen yaakaar ne at the end of the day bépp recommendation bi nga xamante ne def ngeen ko ci commission bi lee ñoom dañoo make sure ne dañoo feel recommendations yooyu euh, for the credibility of your commission because at the end of the day bu fekkee ne nguur gi defuñu loola duñ ŋaañi nguur gi rek am si de waaye dañoo ŋaañi commission bi si boppam ndax dañuy wax ne commission bi indi nañ ko fii ci bureau mi sos ko waaye amul njëriñ ndax yéen ngee diisoo nguur loolu dëgg la xam ne commission yi moo dee gën a nekk seen pour suñ paree def recommendation nguur gi euh, euh, implement recommendation boobu noonu waaye euh, ñun niñ ko gisee mooy suñ defee suñ liggéey ba pare ba jox nguur gi suñ recommendation ñu ngi waxtaan ak nguur gi fi mu nekk nii moom ñu ngi wane ne dinañ taxaw si recommendation yooyu waaye liñ jàngee si yeneen réew yi mooy nguur gi daf la dee wax wax yu neex yi si doorin bi waaye dafa dem be waxtu biñ ko war a defee duñ ko def so léegi ñun li ñoo wax ni mooy euh, ñu ngi saaku nit yi euh, civil society organisation yi citizens si seen boppa ñoom yëpp dem dañ am loxo si nu ñoo munee push go euh, nguur gi pour nguur gi implement plans yooyu fu mu nekk nii ñun opportunity bi ñu am mooy constitutional review commission bi mu ngi fa institutional review mu ngi fa soo ñooyu noonu yëpp su nit yi fexee ba make sure ne am nañ constitution ak institution yu taxaw yu dëgër dinañ mun a fexe ba gis ne ah, nguur gi implement nañ li ñoo ah, li li ñoo li ñoo war a def waaye tamit ah, ñu ngi suggest am na strategy document buñ nekk di draft right now pareegut génnaagut waaye su génnee nañ ko bokk réew mi yëpp boobu tamit suggestion mu ngi si ne war nañoo mun a am xëj na beneen institution boo xam ne xëj na liggéeyam mooy nekk pour toppa nguur gi pour fexe ba gis ne nguur gi liñ wax ne o liñ leen recommendal ne dinañ ko def dinañ ko def. waaw waaw léegi si gàttal kañ ngi a start sittings yi ba ngeen di feeñ ci télé. sittings yi nag um, right now amaguñ uh, date um, boobu noonu duma ko mun a specify ne this particular date la ñoo uh, def uh, doo lifin hearings yi waaye dinaa mun a wax ne ñu ngi work very hard on making it as quickly as possible pour hearings yooyu noonu door parce que xam nañ ne nit yi tamit xaar bi duñ mun a xaar lu yàgg. Euh, am na kàddu yu am solo yoo xamante dégg nañ ko ci euh, Baba Galle Diallo euh, mu ne TRRC bi nekkul fii pour witch hunt kenn maanaam rëbbu ki nga xamante rek yaakaar nañ ne da nga yàq ak ak yellofu doomu aadama fii ci biir réew mi waaye nag bari na ci askan wi ñi nga xamante ne jàppee nañ mbir mi noonu ne dafa am ñi nga xamante ñoom lañ bëgg a jot ci TRRC bi moo tax ñu sos ko fii ci biir réew mi yéen lan mooy seen warugal ak seen taxawaay pour gëmloo nit ñi loolu amul fii ci biir réew mi. loolu boo bokk na si suñ liggéey euh, liggéey bu gën a euh, taxaw euh, wala important si suñ liggéey so ñu ngee def loolu ñu ngee fexe ni ñoo waxtaanee nit yi di leen gën a leeralal ne ñun suñ liggéey bi dañ ko taxawal pour gestu dëgga loolu mooy suñ force mandate bi mooy pour gestu dëgga bi loolu tax ñu taxaw looloo tax ñuy def commission bi looloo tax ñuy def gestu yi ñoo war a def yëpp so loolu rek si boppam war naa wane ne lii du wicc xon waaye tamit ñu ngi eh, jéem a déggoo ak nit yi pour ah, leeral mbir mii nii pour ñu xam ne mbir mi nekkut yëf fii kii la ñoo ut wala diw la ñoo ut wala diw la ñoo ut ah, moo tax ah, bi nga ma laajee mbir yaay jaame bi sax leeralal la ko ne la mhm. commission bi du mun a wax dara si kenn fu mu nekk nii ba ñu mun a def suñ gestu yi ba door a xam lana xew ñu door a mun a make any recommendations te loolu bokk na si tamit ne am na ñoo xam ne ñu ngi eh, sax joytu ne am na ñoo xam ne defoon nañ ay yaaxa-yaaxa yu bari euh, si nguur yaay Jammeh waaye ba léegi ñu ngi si nguur gi euh, defuñ ci dara waaye loolu yëpp soo ko gisee mooy bugguñoo wiccoon bugguñoo dégg ne diw moo def lii rek ñu toog dal sa kaw. waaye ñu toog waaye Mr Dabo eh, in this case ne eh, for example. bu mhm. fekkee ne. Mhm. Eh, am na ki nga xamante ne jàpp nañ ne moom bokk na ci ñu soxla. te war mhm. naa uy ci TRRC bi ndaxte bokk na ci ñu toroxaloon nit ñi nga xamante ñoom lañ wax nañ dañ yàq seen àq ak seen yella fii ci biir réew mi te kooka nekkut fii ci biir réew mi. yéen nan ngeen def ba jot ci kooku pour mu war a mun a ñëw moom tamit mu gaarale kàddoom ci TRRC bi. waaw ah, boobu nag xëj na dina métti du mel ni koom koo xam ne mu ngi si biir réew mi parce que ñu nekk si biir réew mi moom du amul benn position boo mun a nekk si réew mi boo xam ne su la commission bi soxlee doo war a mun a ñëw uyu ah, li ñoo def si doorin bi mooy da ngeen am autorité boobu waaw autorité bi am nañ ko waaye euh, commission bi parce que yëfi waxtaan a déggoo moo mooy suñ force approach suñ la tuumalee wala suñ la soxlee si commission bi dinañ lay yónnee leetal ne la commission bi dañ la soxla pour nga uyu si su fekkee danga bañ de mun nañoo dem si court bi eh, am a pour nga ñëw ah, wala soppi na la pour nga ñëw uyu si waaye boobu tam soo ko bañee am nañ doole bi pour arrest la forcé la isi la waaw bési commission bi waaye uyu si moom su fekkee yaa ngi si biir réew mi am nañ doole boobu noonu pour euh, isi la nga uyu si waaye ku nekk bitim réew nag mhm. mbir mi dina xala euh, mhm. jafe foofu boobu euh, dafa des si suñ diggante ak réew moomu ak naka la naka la ñoo mën a déggooyee daal su fekkee ne mun nañoo def ndax man dama jàpp ne eh, eh, commission bi bu fekkee ne dañ bëgg a xam lu nekk dëgg daal ci mbir mu ñuy ut mënuñoo mhm. bàyyi ñu nekk bitim réew ndaxte vast majority of euh, euh, Gambians si nga xamante ñoom ñoo nekkoon di liggéey mhm. euh, ci former government bu fi nekkoon ñooñu ñu ngi bitim réew nekkeew nekkoon nekkatuñ fii ci biir réew mi rawatina ñi nga xamante ñoom ñoo gënoon a xarañ ci soldat réew mi ci jamono yooyu mhm. ñoom ñëpp ëpp doole bi ñu ngi bitim réew su fekkee ne soxla nañ ñooñu pour ñu ñëw testify ci commission bi te ñooñu mënuñu ñëw ci at that at instant lan mooy nekk euh, requirement yi nga xamante rek moom la commission bi di ndaxte ñooñu dañ leen soxla te dañ war a ñëw ndaxte ñooñu dañ soxla seen wàll ci euh, mbir mi nga xamante ne ñu ngi koy càmbar fii ci biir réew mi mënuñu ñàkk a ñëw ci mi. Ah, ah mun nañoo def liggéey commission bi comme li ma nii gestu boo xam ne la euh, everything lañ bugg a gestu waaye tamit leer nañu ne am na ñoo xam ne xëy na nañ leen soxla te duñ leen mun a jot loolu du si ñàkk waaye loolu du tere report commission bi mu jub. su fekkee ne soxla nañ nit euh, ñëwut mun nañoo am information evidence euh, mun nga koo amee different place du dee des si benn nit rek euh, koo xam ne xëj na si moom rek ngaa jëlee benn evidence boobu noonu xëj na dina am nit yu bari yu nekkoon yu ko wóoroon wala ñi fa nekkoon ñoo xam ne di nga leen mun a jot su ko defee loolu moom du suma liggéey sax pour leeral waaye investigative unit bi toog nañ xelaat yi yëpp comme li ma doon wax unit bu nekk am nañ training si nañ fi ay experts yu bari ñu ni neen ba pare ki leen jiite tamit ku am xam-xam la si yëfi ah, investigations yi nii ak ah, dealing with these ah, kind of issues so gars yi yëpp toog nañ waxtaan nañ am nañ seen plans of naka la ñoo defee problème yi naka la ñoo dealee ak problème yi nii yëpp daal so xam naa ne óolu naa leen gis naa seen liggéey am naa confidence ne gars yi dinañ mun a def seen liggéey ni ko war a defee waaye euh, euh, bala ñu dem rek euh, am na loo xamante tamit bëgg nañ koy laaj TRRC bi ban policy lañ am seen diggante ak media bi ndaxte xam nañ ne TRRC bi mënut a dem bàyyi media bi gannaaw soxla nañ leen trop. ndaxte mun na nañ naa jàppale ci lu bëri ci lii ñuy gëstu fii ci biir réew mi. yan buntu ngeen ubbi pour fas fas yéene jëflante ak media bi fii ci biir mi ci liggéey bi ngeen di def. Euh, TRRC bi mu dooree moo media bi la ah, am nañ fi ay foog naa foo media training pour ah, parce que ah, report façon problème yi au euh, Truth Commission reporting dafa am mbir yu si nekk yoo xam ne xëy na nekkut si. normal journalism bi so loolu dafa tax be eh, bi commission bi di door eh, def nañ training yu bari si ay experts eh, last week rek maa ngi woon si benn training man ma journalist from Kenya Uganda Sierra Leone Liberia and and Ghana ñoo xam ne yëpp dañ leen isi ak suñ journalist Gambia bi fii pour ñu waxtaan jokkoo xalaat daal seet o jànga si ñoom li parce que dëkk yooyu yëpp dem nañ through through commission yi soo dañ si woon rek pour ñu jéem a dimbale wanteeg suñ media bi fii pour ñu understand uh, media journalism uh, in terms of through commission bi waaye tamit am nañ another three aba uh, oh, oh, trainings pour media bi fii ba pare ba léegi we have an open door policy media bi if you want any information clear information you can contact mun ngaa contact commission bi we are always happy to talk to media bi be pare suñ events yi they are always open tamit boobu noonu tamit except <laughs> ah, ma leeral boobu women circle bi boobu dañ ko dee bëgg a def si sutura waaye yi si des yëpp ah, is open to the media anybody ku bëgg a cover any activity bu commission bi di def you are free to do so lu ñoo ñaan rek mooy media bi tamit xam ne ah, dañ am certain responsibilities because yëfi liggéey commission bi is sensitive ñun yëpp xam nañ loolu hmm. ah, li fi xew dafa métti am na ñoo xam ne yiñ daj dafa métti so ni nga ko neetalee si media bi léegi-léeg foog nga xelaat ko ah, naka laa affecté victimes yi naka laa affecté waaye tamit loolu yéen yéen you have a eh, su fekkee ne eh, ñu ngee dugg ci loolu ndaxte mhm. eh, war ngeen di diisoo ak media bi laissé bu fekkee ne affaire bi sit si commencé na laissé every three months wala every two months ngeen am briefing bi nga xamante dafaa xew seen diggante ak media bi su ko defee ñoom tamit ñu xam lan moo nekk di xew ci proceedings si su ko defee ñu avoid li nga xamante ne moom moo nekk wax li amul ci proceedings yi nga xamante ne ñu ngi xew te loolu sax war naa mun a am ndaxte war ngeen naa jàpp xëj na every three months wala every two months loolu loolu loolu palaan nañ ko ba pare euh, mu ngi tegu waaye parce que hearing si dooragut moo tax defaguñ loolu waaye plan nañ already ne dañoo am regular press briefings ak euh, commission bi ba pare liñ doon wax ah, media houses si réew mi yëpp moo nekk ku nekk xëj na di nga appoint benn ah, journalist wala ñaari journalist yoo xam ne seen ah, ñooy nekk focal person diggante eh, media house bi ak commission bi waaw su ko defee ñuy mun a am access to information nii ko commission bi di génnee oo suñoo def suñ press release yi Euh, media house bi di ko mun a jotee noonu suñ buggee laajte seen laajte tamit mun nañoo contact euh, commission so yooyu yëpp mu ngi si plan bi. ok yes. Ah. kon euh, Mr Darboe dañ lay jaajëfal bu baax a baax rek ci waxtu bu jël rek jagleel ko Star TV. jërëjëf thank you very much man am always happy pour lii mooy suñ liggéey commission bi nekkut commission boo xam ne dañoo def suñ groupe rek liggéey liggéey bi mu liggéey bi dafa nekk liggéey boo xam ne réew mi yëpp dañ si war a bokk. dañ liggéey bi ah. moo tax euh, foog ñu mun a nekk di déggoo ak nit yi pour ñu xam si lan lañ nekk euh, su ko defee ñu mun a euh, jàppalante ñun ñëpp Gambia benn la ñun ñëpp a ko bokk ñu yóbbu Gambia kanam loolu mooy liggéey commission bi loolu mooy liggéey yeneen commission yëpp te xam naa ne loolu mooy yéene doomi réew yëpp tamit so maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu jàppa si liggéey bi daal ñun ñëpp ñu fexe nu Gambia jëmee kanam. jërëjëf waaw Ah, jërëjëf mbokk yi lii la leen amaloon fii ci Star TV ci seen programme eh, suñu réew ngeen àndoo kook seen xarit seen soppe Seydou Camara ak Omar Tunkara eh, kii di Ibrahima Dabo nag moom moo nekkoon gan bi ñu dalaloon fii ci biir kër gi waxtaan moom lu xeet ak wàllu TRRC bi fii ci biir réew mi am ak kontante ci eh, seetaan bi nga xamante ne yéen a koy seetaan Star TV waaye tamit di leen ñaax pour ngeen continuer di safoo ah, Star TV jërë ngeen jëf wasalaam